jërë ngeen jëf mbokku internet Actubuzz TV mbokku internet li si réew mi que ñu amati mbégte contentement bu baax a baax mais ñu ngi amati tey mbégte bu baax a baax Badou ak Babacar ñu ñëwaat tey fi nga xamante ne mooy Dalifort ñu fekkiwaat fi tey ab beneen jeune ah ci koo xamante ne tamit xale boo xamante ne dund na tuuti ay nattu ak ay ay jaar-jaar parce que suñu émission bi moo tudd jaar-jaar jaar-jaar nag bari na ci loo xamante ne ñu ngi ciy dox ak di ci wax di wax ne émission bu am solo la nag di ko képp koo xamante ne suivre na ko nga jël sa temps di nga déglu ñu waxtaantee ci lu am solo solo lool lool lool ci jeunesse bi parce que jeunesse ñooy ñooy àdduna ñooy réew jeunesse ëllëg ñooy doone lu ne ci àdduna parce que dañoo jar a bàyyi xel Kara ñu ngi lay baax di la siyaare waaw delloo naa ko delloo naa leen ko bu baax maa nuyu ñëpp waaw di nuyu sama yaay di nuyu sama papa di nuyu sama am di jaamu yëpp ak sëñ Touba di leen dalal jaamu ak yéen waaw aca waaw tey ñu bëggee xam kan mooy Kara lan ka ñuy wax tey ci Kara kan mooy Kara bu dëkk Dalifort juddoo Dalifort màggee Dalifort waaw ba sëñ Bamba nekk ndaw nag teel a am ay jaar-jaar yi tar sax waaw teel am ay jaar-jaar ñun am nañ tur te amuñu dërëm waaw loolu lépp si jaar-jaar bi la dund lu tara tar sax ba sëñ Fallou Mbacké parce que banlieue moo demee noonu quoi ñun fi nga ñu fekk ni fii lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañ màggee xamuñu feneen waaw ñun génn bu ñu génn mu yàgg ñu yàgg si àll bi rek natulo woon mais ba juddoo ba tey musuñu génn fii nattu moo taxoon ñu raar fi xam nga ay at waaw ñu nekk si àll bi loolu kese moo ñu mën a génne fii ak tukki war na sëñ Tuuba waaw. nattu yi ak jaar-jaar lan la woon bu nga ñu ñëwal ci li nga xamante ne mooy si nattu yi wala tamit ci jaar-jaar yi parce que tey Kara siw na te amul xaalis li wax dëgg ci ci loolu laa ñëw la woon ak Kara ban façon nit la woon. waaw Kara enfant mooy loolu mooy da doon jàng après mujj bi yaa ma gën a xam. affaire xale mujj bàyyi jàng bi dem si sareet yi waaw man gëm man mun naa ne lu ma doon sax sareet moom ko def waaw man sama carrière yëpp sareet laa ko dawal fas ak sareet laa yor ba ni ma toll nii waaw war na Serigne Touba fas ak sareet laa yor xam nga fas sax kenn du la wax yi si nekk ak yëpp war na Serigne Touba waaw ba ñuy doxee noonu ma yor sareet di dem di dem ba ay at xam nga monsieur le maire ndam si yàlla ki fi nekkoon jëlee ma si sareet yi si jaalo waaw moomu njëkk a jëlee saret moomu njëkk a fay salaire waaw war na Serigne Touba ma commencé liggéey mairie nag di liggéey mairie di liggéey mairie ba 2017 si laay am nattu te 2017 laa takk jabar 2017 laa am nattu 2017 laa damm 2017 damm naa si 2017 takk naa si soxna 2017 laa daanu kaso waaw war na Serigne Touba Mbacké loolu la ay yow ci feewu li nga xamante ne mooy ci kaso bi mais dama gis jamono ji ci lu ëpp ci banlieue bi buñ nee Dalifort ni Géejawaay yëmbal yi Pikine ñoo ëpp ci prison bi lan la ñun doomu baadoolo yi lan moo tax ñu gën a bari ci jeel bi lan la waaw lu gën a bëri loolu loolu loolu dañ ciy wax sax parce que ñun ñun ñun suñu nattu bi ñu bëri fekk nañu ministre fekk nañu fa député fekk nañu koo xalaat fekk nañu kaso ñun barki Serigne Touba mba lu ñu naan baadoola mooy tëdd kaso dëgg la baadoola mooy tëdd kaso parce que ñun gis nañ ko gisaat ko waaw ñun suñu fee sax du fee ñun suñu fee woon nekkul woon fee mais da ngay gis fee bu ko gën a garaaw fuuf mais branloo lañ lay jaay xam nga lu ma la branloo ñu boo amul branloo daal lu ñu naan baadoola moo moom kaso dëgg la moom ñoom lañ ko tabaxal surtout 100 mètres boo fa demee ay tout tànk rek nga fay gis ñoo xam ne xaaj bi yëpp lañ dëkk ñi fa dëkk town dañ leen di compter wóor na Serigne Touba waaw di leen waaw moo loolu daal wóor na Serigne Bamba jeel bi jeel bi jeel waa banlieue la waaw jeelu banlieue la ku juddoo banlieue moom force di nga mos jeel waaw lool loolu xaw ma nu mu demee nag xaw ma ñàkk bi ñàkk la xaw ma la la mais xam nga am na ñoo xamante ne mënuñ ñaan am na ñoo xam ne mënuñ tàllal loxo ne diw meema man man man mu man du ma taalal nii sama loxo ne ko mee ma su ko naree def man ma dem defi naka sa naka sudul noonu yaa ngi da ngay tiim da ngay jege koo xamante ne da laa jege ak kan war la dimbali du la dimbali di la seetaan di la seetaan nga nekk si ay situation ñu xam ne kii mu ngi si ay situation te yor nañ luñ ko mun a defee duñ ko def ñu lay seetaan ngay dem ak sa xel xelu jeunesse ba dugg si yeneen yow warul dugg après ay affaire fekk la si waaw ñu ñu mu dal yëpp si jeel bi yëpp ñu dëkk banlieue noonu lay demee waaw nit doo am di sàcc nit doo am di jaay boon nit doo am di def wala naka sudul noonu lu ñuy tere ñu ko am dañoo tal loolu ñi ko am ko am million yaa ngi xool ba beneen million boo teg waaw ku am benn million yaa ngi xool beneen ñaari million loo wala ku am ñaar yaa ngi xool yeneen ñaar yoo muy ñeent waaw mhm. ñii di sàcc yëpp kenn si fëgg kenn mu génne la benn som bi sàcc ñu ngir seen lool ngir ngir ñoom ko am na ñoo xam ne duñ ko def ngir ñoom man gis naa benn paa boo xamante ne kooku day sàcc day sàcc moom day sàcc moom nangu na day sàcc te buy génn di sàcc yaayam da koy sottil ay gàllaaj pour mu dem sàcc moom bu sàccul yaayam du lekk te paa de bu sàccul yaayam du lekk barki Seydina Mohamed waaw waa tur bi moo xaw a kii noonu rek mais waaw te sàcc bi da amaan lu ñu naan wërsëgam la sàcc bu raw bu sàcc raw kooku noonu moom moo ko moom wërsëgam la sàcc bu sàcc raw lekk xaalis boobu xaalis moom moo ko moom amaana daa teewul ak deful ndànk xam nga xamul ban jour la tamit moo tax mu dem di di ko jëli ji mais loolu mu jëli ji si borom loolu moom moo ko moom nit ku sàcc ba raw rek loolu yaa ko moom sa wërsëg la amaana nag wala da nga ko mënul xaar rek mais yaa ko moom barki sëñ Fallou ku si sàcc nag am si nattu xamal ne moom moo ko du sa yëf moo war a sax nattu di am waaw mais ku si jël rek alalu jàmbur raw kooku yow yaa ko moom da ngaa deful ndànk rek mais bés boobu dina noonu ñëw yàlla bind na ko ba pare da nga koy am falaa force waaw lu yàlla def la ba pare démb waaw moo tax xam nga mu ñun du ñu rusa wax lii nii daal parce que jaar-jaar la lu suñu borom di bind suñu borom lu mu bind si jë ala kulli xaal da nga siy jaar munoo dund te doo si jaar donte da nga jaar ba pare faatu sax di nga si jaar parce que moom bind na ko ba pare. lu mu bind rek day am moo tax ñun suñ nattu bi dañ si jàngaatee lu bëree bëree bëri dund kaso lu tara tara tar waaw barki sëñ Fallou Mbacké loolu laa ñëw ak yow léegi ku sañoon adduna bi yaa ciy gën mais adduna yàlla suñu borom mooy xool ay bis bis système di ko ci doomu aadama kaso joomul kenn waaw buur yi dugg nañ fa ministre yi dugg nañ fa <laughs> wàllu yi dugg ku ne jaar nga ci mais lépp loo gis destin la boo xamante nit war nga see mën a jaar nga war cee mën a jàngat parce que dañ ñaan doomu aadama li gën a ragal ci muy nattu te nattu mooy defaral doomu aadama nit ba amul a yaru di nga ci a a tey ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy ci ca détail yi nga xamante lan moo tax nga waaw nekkoon fii xam nga rek. war na Serigne Touba comme lu ma la wax da nekk ak ñun ñu déggoo ma man Kara man man ma dem jël alal jàmbur moo gën may ñaan koo xamante ne gis na ko te defu ko xam li nga war a def te defoo ko ba leneen am si apare ku nekk di wax amaana man sama nattu noonu la demee woon man dama nekkoon si ay situation yu doy waar sax barki Serigne Touba Mbacke. na waaw kaso bi dimbali waat nañu mm-hmm. du suñ coobare ñun ku ñu xam moo ñun bañ demee kaso suñu ginnaaw ku ñëw danaa ndeysaan xamee wuñ ko loolu xamee wuñ ko loolu mais lu war a xam mënoo si dërëm lu war a am mënoo si dërëm moog dee ñoo yem dee bu ñëwee dangay ngay natu mu ñëwee da nga koy dalay dal force bis bi nga war a tekki bu ñëwee da ngay tekki du échec mm-hmm. yaa ngi dégg moog natoo yem nag lii di nattu lii di dee lii di am-am kooku lii di takk jabar ah, ñeent yi ma la limal loolu noonu bis bu bisam jotee rek day ñëw mënoo si mucc waaw amaana kay yow dalay dal xam nga nga jàng nga jàng si lu bare bëree bëri te ñun noonu la demee ba ñu dalee jàng nañ lu bëree bëri si biir waaw jàng nañ si lu bëree bëri lu ne fekk nañu fa barki sëñ Fallou Mbacke mhm. ku bi dafa metti mm. xale yi mineurs yi ñu fa yi ñu fay denc hmm. jafe-jafe yi ci ba ci seen problème mu lekk yi sax hmm. gars ñu koy gàntu di ko jooy. dëgg la kaso boo ma wax la la si dara kaso. Hmm. kaso boo rentré. boo rentré tey di nga toog un mois doo dem douche di nga toog un mois yoo xam ne doo dem douche métit mi weesuwul loolu noonu premier métit te boo moo si gën a ndaw di nga toog un mois yoo xam ne boo demee douche ay ngelaw rek ngay génnee. man too benn benn tukuloo rentré na ji nekkoon xaw ma fan. Mhm. xam nga xamul dara nag mu rentré ñëw suñu néeg. ma xool ko yërëm ko woo ko mu ñëw toog ñu toog man ak moom mën a ko gaan lan la yow xam nga booba tey da ngay séngéem di jooy rek lan la xanaa gisoo ñu ñun. ñun ñaata at ñu ngi fii baa di xaar ñibbi mënuñ ñibbi xanaa budul dara nga xool si ñun. mu ne ma noo karaa man leen moo ma tiital. Mhm. man ko la moo la tiital mu ne man may dem douze du ma génnee dara. une semaine deux semaines a ngi su ma demee douze du ma génnee dara man ko loolu si lekk bi la. ci lekk kaso bi lañ ko def parce que benn nit ñu siy def xam nga nombre nit yoo xamante ne day moo trois cent jëm kaw hmm? ñoom ñoo koy def espérer parce que bu ñëpp seen biir yi di normal douze yi day satire day satire te douze douze kaso ay rang la hmm. sangu rang dem douze rang la lépp lépp seen ñoom seen lépp règlement la hmm. waaw ñoom seen lépp règlement la booy bi loolu ko wax ne nag lii day deñ amaana li nga ko miin miinul sax moo tax muy demee nii waaw ñun lii jaar nañ si jaaraat si ndax lii day deñ mu ne ma moom dee dootul lekkat bu dee lekk kaso bi la dootu ko lekk te noonu la demee jour woowu la bàyyi lekk kaso ba nu muy ñibbee wóor na Serigne Touba di lekk ceeb bi xam nga di si daj ay xeer di daj ay affaire xam nga ay pont da koy gis si ceebu jeel jeel jangaa bi da ngay lekk ba si yàgg gis pont wala gis xeer ñu bëri seen bëñ yi fa yaa man samay bëñ fa la yaa barki Serigne Touba Mbacke di lekk di daj ay xeer ñebe bi duñ ko tànn pon bi ñuy jaay si biir kaso bi mbëbës lañ koy jëlee mbëbës pon bi da koy lay boo ko lay ay karaw xar ñooy génn ay karaw xaj lépp te te gaa dañ koy tux ñaa ndax lan ñaaka pexe amuñu nit ñoo na fa di tux te du tuxkaate nit ñoo na fa di tux ndax lan li ngay gis moo lay yéem barki sëñ Fallou mbake nit dugg na fa dof tàggoog sagom ñu wax mu ne day ñibbi di kii xam nga boobu yëpp xam nga li mu moo ko xaw a jaaxal daal waaw parce que lool loolu noonu dal na la mais amaana njàmbaar bi nga doon sax moo tax nga dund ko normal sans kenn bañ ci xamee dara mais am na ñoo xam ne ñu lool fu mu méttee rek dañ ko fay wone waaw ñoom xamuñu lu am na ñoo xam ne caabi du leen féetee ginnaaw bis bu leen féetee ginnaaw dañuy waaw yaa ma gën a xam bak sëñ Fallou hmm. dañuy def force bak sëñ Bamba jafe-jafe yi la woon jafe-jafe mooy tëdd tëdd bi métti na tëdd bi dañuy tegle nit ñi dañ leen di tegle barki Serigne Touba man ñeent at laa fa def ñi may seetaan xam nañ li may wax bu baax a baax wër na Serigne Touba Mbacke kaso métti na métti boo xam ne munoo am na am na commencement mais amul fu mu yem métit bi métitu kaso am na fu mu tàmbale mais amul yem waay day gën a métti di dem ba nu ñuy demee nii day gën a métti di dem barki sëñ Fallou Mbacke tëdd bi métti na tëdd bu ñu placé nit ñi danga naan ay xar la jël di leen tegle ay mala te ay doomu aadama lañ ñi leen di tëddal noonu ay doomu aadama lañ ñi leen di tëddal ay doomu aadama lañ mais dañuy concentré aussi garde yi xam lu ma mu ëpp yenn seede sàmbur yi duñ jàpp ne ñoo jeel maane ñoo ay mbokk lañ dañu war a tafoo doon benn xam nga mais duñ ko def dañ lay jéem a noot léegi yow boo doonee jàmbaar am na loo xam ne doo ko nangu ba ba ngay dee doo nangu loolu jàmbaar jàmbaar a ngay doon ba ba ngay xëy dee jàmbaar jàmbaar a ngay doon munoo doon leneen lu dul jàmbaar lépp loo gis soolo loo nàmp rek après boo demee foo munti dem day feeñ waaw ñun bu ñu defoon kaso 10 ans suñ jikko du changé parce que ñun noonu lañ mel ñun ay jàmbaar lañ fi ñu dëkk moo tax munuñ dem feen fenn fenn di cóob wala di ko dundee neneen am na nag ñi koy def yow da tëdd toog nii kaso xam la moo si gën a métti ngay gis loo war a faj doo ko faj te chaque jour boo xëyee da ngay gis lu la métti doo si mun dërëm doo mun dara dara dara kalaame ngay def moo tax ñu ne la jelmaan moomin la kalaame rek ngay def comme xale bu ndaw da ngay kalaame kalaame moo la war da ngay kalaame xale bu ndaw da lay tooy nga dem kalaame ko koo xam ne bu doon sibiti la da nga koy yeew wala nga dundak moom leneen mais kaso dafa moo tax ñu ne kaso baaxul kaso day jël baadoo la def ko noobul jël noobul bi def ko baadoo la kaso mooy def loolu li ma lay wax nii am na ay borom daraja yoo xam ne man ak ñoom bokk nañ ne ku si mel ne Ngaaka Blindé ay Karim Xurum Xaaka ñoo ñëpp bokk nañ benn néeg Ngaaka bokk nañ benn néeg 6 mois ba muy moom ba muy rentere ay timis la mu ngi boo ko xoolee da nga koy yërëm Ngaaka Blindé mu ngi may dégg ñun ñoo ko dalal laa la wax mu nekk fa 6 mois ñu ko fay jëlee di ko yóbbu 6 moom li ma la man man wa man waga kaso rek la ma dale ay wokkatu man wokkatu naa ba sama affaire yi nar a yàqu foofu. tokoro mboose naa boo ko laajee gaa xam na xam nañ luy tokoro mboose bu baax ñun dund nañ ko foofu métit yooyu noonu toog naa ni muur sama mbalaan di jooy fu kenn nekkul xam na lii nii gaan wala lii waaw amaana dina jeex daal mais bis bu jeexee ñun dinañ xam ñu ñooy kan. dëgg la jombul kenn nag mais nattu moom bu ñuy dalati day fekk loo xam ne lu suñ borom def la rek mais du loo xam ne ñoo koy sabab wala ñoo siy dox wala ñoo siy wax ba mu ñëw bu ñëwee nag dañu xam ne ñëw na ko waa mais du loo xam ne ñu ñoo koy sabab waaw parce que ñun dund nañ ko du du ñàkk ñu fayda boobu noonu bay defaat loo xam ne après dañu fay yóbbuwaat barki Serigne Touba Mbacke. dafa mais parce que ñi nañ ku euh, yuuxul jafe-jafe ñuy dund foofu noonu parce que bari na ñoom tey bu ñuy génn rek fàtte ne si ci leneen mais tey li ngeen li ngay def nii tey dafa jafe parce que tey bari ay ñoo xamante ne ñu ngi tëdd ay pen yoo xamante sax waruñu leen koo tëj mhm, dëgg la man gis naa ko jël ku benn kóol kool gis naa ku ci tëj deux ans trois ans sam benn booy mu ngi dëkk Pikine ba mu rentré si man la nekk problème parabo la am open press booy ñaa bi mhm. ak Lac de Guiers la woon xaw ma ak kan lañ ko jàppoon xam nga ma la mhm. mu ñëw problème portable ñu tëj ko si trois ans xale bu ndaw ñu yóbbu ko camp am na benn booy boo xam ne onze ans la euh, am xaw ma treize ans lañ indi saamel bañ ko indee ñëpp dañoo tiit xale bu ndaw xale bu ndaw laa la wax géejawaay bii la dëkk Moussa la tudd booy boobu li ma la wax ni fekk na fa Karim Karim xurum xaaka bii def émission bi Top FM Karim rappeur Karim xam na li may wax Karim ñoo toog man ak moom ak ngooñ la Latir mbay xam nga ñu woo ñu woo yooni ma ne ma wool ma booy bi ma dem woo booy mu ñëw ñu toog ñuy laaj booy bi ndax boo gisee sa yaram day daw ndax booy bi ak 100 mètres li nga fay dégg ñu yéen booy bu ndaw indi ko 100 mètres gëm nga ni booy ba ba mu fëlee ceesam boobu dafa ñëwaat kaso xam nga kan la mun a dimbali borom borom xel waa ku màgg mais xale bu ndaw boo ko fa yóbboo da nga kaa gën a yàq da koy def délinquant pour mu yàqu ak yomb parce que kaso ay clan la am na clan yoo xam ne du ñu bàyyi ba ba ñuy dee du ñu am na clan yoo xam ne boo fa toogee am nga mille chance pour mucc si àdduna am na clan yoo xam ne boo fa nekkee da ngay mucc sax da ngay mucc munoo bañ a mucc parce que yow li ngay dégg rek loolu nga mën a appliquer li ngay dégg luy toog sa nopp sax estaare après loolu ngay mun a appliquer da ngay yaakaar ne loolu la fekk du loolu waa te chambre dafa nekk chambre mineure boo xam ne ay booy rek fa nekk ay xale rek a fa nekk esprit xale bi day daw waaw barki Serigne Bamba Mbacke di fa gis lu nekk di fa gis lu nekk laa la wax loo xamante ne buñ la ko waxoon da nga naan lii amul di fa jàpp nit muy tëddee góor xam nga loolu kaso rek la am amul feneen kaso rek la am kaso ngay gis ñu mu muurante ñaari góor di sekkante ñaari góor di ko defante loolu lañ naan ñaafoor si kaso métitam métitam amul am am na la rek tàmbale am na mais amul yem waaye si métitam waaw da ngay gis booy toog ci kaw dàmbaloo bi toog ba seen tànk yi di néewi toog ba seen tànk yi di néewi laalaw la kaso kaso ngay gis ku toog un mois du tëdd du tëdd du xaw a wéeru nii sax boo demee dix da ngay waaru soo demee dix bu ñu la dugalee boo sigee da ngay tiit doomu adama yi ngay jàkkaarloo moo lay tiital boo nee jàkk da ngay tiit barki Seydina Muhammad ndax mbooloo bi ngay gis nga yaakaar ne lii xajul si néeg bi te xaju fa sax ñoom ñoo ko fa forcé balaa ngay xam ne xaju fa heure placé jot ba ñu tàpp ni dañuy placé di tëddal gaay da nga naan déedéet yow boo doonee baabul xayri nga xam ni affaire après après da lay jaaxal mais looy gën a dem rek di ko gën a xam nga maîtriser looy gën a dem di ko gën a maîtriser gis nañ ku fa ñoo xamul dara xamul dara mais da lu mu gën a yaakaar di gën a xam di gën a xam di gën a xam te kooku bu xamul dara boo ko fekkoon si talaan bi sax xamul dara mais kaso la xamee lépp kaso la xamee aduna kaso la xamee métit kaso la xamee bànneex kaso la xamee lépp moo suñ genre yi barki Serigne Ba ma ñun ñun kaso daf ñu dimbali bu yàqunu man Kara man boog man kaso daf maa dimbali bu baax a baax ba ma xam ko lu mënta woon ñàkk la nag lu suñ borom defoon la moo tax bañ ko nangoore après dañoo gis njëriñ bi waaw barki sëñ Fallou Mbacké. Hmm. lan moo ci gën a métti ak loo ci réccu si sa sa si sa àdduna ne réccu naa ko li ma ci duggee. waaw mooy ba ma demee rek tëdd ba sama soxna fekk ma fa ne naa ko may baat. Oh. loolu bokk na si lu ma gën a métti sama àdduna. parce que man dama jaante dama jaante baay war na sëriñ Bamba pour kooku noonu kooku noonu man ak moom nekkul woon sax ay ni man gëm naa ni genre affaire natu yi rek moo mënoon tàqale sama diggante man ak moom. Dalifor koo laajoon da la wax. moom moom bu seetaanee émission bi xam na li may wax barki Seydina Mouhamed waaw man loolu ma gën a métti man ma takk sama jabar bàyyi xoolat dara xewagul ñu ne ma ràpp bu jeel sama soxna nekk fii di ko tëni di ko tëni di ko tëni ba ay trieuse mu xëy rek xam nga doo comprendre tamit da xam ne après seen normal daal waa ndax bërëb bi nga nekk moo waral loolu noonu yoo xamagoo kañ la atteeguñ la xamagoo kañ la xamagoo fan la tamit doomu jàmbur nga téye amaana wala waaw da nga koy mujj libéré rek mu dem man loolu rek moom ma métti sama kaso leneen métti moom man parce que man góor laa lu métti góor lay dal lu ñu dal rek xam nañu wala góor la war a dal moo tax bu ñëwee rek ak nu mu mun a ñëwee dañ koy maintien xam ne yëfu góor la yàgg yàgg day jeex barki sëñ Fallou Mbacke man amul leneen looy wax kaso mu jaaxal ma lu dul sama jabar fekk ma fa ne ma nooree ni mënatuma ko meema sama baat man toog naa kaso boo ma xoolee da nga naan daf feebar. boobu stress maa ngi xalaat xam nga di xalaat soxna seeg yooyu noonu xam nga ak sama yaay sama yaay jaay na léppam sama yaay daf moo tax man man mënatuma def lu bon wala mënatuma nekk fii di dox si ay caaxaan bu dul dara rek man sama yaay Dalifor ko wax bébé Kara lañ koy wax ndax lan sama yaay nu mu def sama yaay bu ma fekkoon benn heure bi daa ma naan jógal nga tëddi ba tey ji may wax ak yow booy nii koñ bi fii bébé lañ may wax ndax lan sama mère man lépp lu may defati la sama yaay laa siy xool bu dee lu baax la moom laa si xool bu dee lu bon la moom laa siy xool su ma nee defal ma def su ma nee bàyyi la may baay man guddi sama yaay rek laa am ba ma ñëpp bàyyi ñaar laa dese sama yaay hmm, ak sama waa ji kii katana yoo xam ne bàyyiwul kii da doon sacrifice di bàyyi ay liggéeyam bàyyi di ma indi lépp lu ma soxla kii laay woo du ma woo rak du ma woo mag du ma woo xarit benn bii laa am naa mu Muhammad moom moo tax kii bu lépp lu ma def man mun naa ko dokk man nee nañ nit boo xamul numu la def rek nu mu la defa tax waaw kii man sum ma ko bàyyee rek du ma gor am na ñu yoo xam ne boo leen bàyyee rek doo gor waaw même bu fekkee as tuuri sax gaan defal nañ la ko waaw amaana moom bàyyi na xel suba moo war sax mu meññee ak man nattu xam na ni suba day am te lii day jeex ñun ñoo fiy nekkaat moom mu meññee ko ak man ànd ak man si loolu ànd man si loolu ba mu jeex tàkk ba ba may ñibbi moom moo ma jël si. quatre ans bu may ñibbi moom moo moo jël si wóor na Serigne Touba Mbacke billaahi nga dund ko dund bi tamit dund ko stress pression xam nga ndeysaan boobu même nga ñëw gis maire bi waaw wóor na Serigne Touba guddi boobu moo ñëw baa affaire yi wala mu ngi mel ni damay soo a gane si ba may fëla noonu dafa mel ni damaa soog a gane si àdduna barki sëñ Fallou Mbacke fek sama rakk yi maago fekk ñëpp maago fekk li ma fi bàyyoon lépp changé sama liggéey yàqu sama lépp yàqu xam nga ma ñëw fekk man ba ma gisee maire bi après naas ba mu ko fekkee normal mu nekkaat naas ak man dama santaat bu baax a baax xam ne man fekk naa sama maaram mu nekkaat si jàmm rek damay santaat bu baax waaw parce que man moom rek a ma yéemoon à part sama soxna boobu dem la resee man maire moo ma jaaxal waaw moo tax moom nee na mu ñëpp buñ la bàyyi man du ma la bàyyi moo tax fii baa nañ gën a fonkaat suñu waajur surtu yaay wóor na sëriñ Bamba Mbàkke nañ fonkaat suñu yaay bu baax a baax a baax ndax fii baay wala munoo am lu gën yaay man waxuma baale foofu boo fa demee ay musóor nga fay gis ay musóor ñooy takk añi di ko andi ñooy takk boole di ko andi mhm. nga la baay nañ jàppale suñu yaay baay man sama yaay moo tax baay la man am naa fitu def lépp man ragaluma dara man ku ma xam-xam na ma bu baax man Kara ragalul dërëm man ragaluma def dara njombe ragaluma ko mais sama yaay laa ragal man ragaluma dara mais damaa ragal sama yaay man man dóor ma dóor ma moo ma gënal nga toog ma di ma yedd di ma taaj nga téye ma dóor ma dóori métti moo gën loolu barki too Touba Mbacke moo tax man su ma lépp lu ma baay sama yaay moo tax man ma bàyyi ko teg lépp si suuf fas yéene nag jaamu ko bàyyi lu mu bëgg man ma defal ko loolu noonu man sama yaay lu mu bëgg loolu laa koy defal jaamu ko nag ba mu xëy xam nga yàlla bàyyi ñu fi gaan ba xam nga suñu yéene ci moom mate ak jaamu barki sëñ Fallou waaw wër na Serigne Touba man ñun loolu rek la ñaan waaw suñu yaay lañ bëgg a dimbali mu dem wala waaw mu fi ko a ñun situation yi ñu dund dafa métti banlieue ku fa dëkkul mënoo ko xam banlieue dafa métti métti métti waaw war a lekk baay yow da yor benn la si téeméer sax jox ko booy toog maire bi du am lu mu leen jox day xëy di leen xool ay xale yu ndaw ngay gis bàyyi ñuy tëdd ay minuit ay deux heures ay treize ans onze ans nga fiy gis banlieue bi ñuy tëdd heure boobu loolu yëpp ñàkk luñ lekk la moo tax mm-hmm. fii ku reggoon tëdd nga bu yàgg xiif rek moo leen di doxloo bale bi loolu amul si yenn saar yi nii benn heure bi tëj nañ waaw fii nag benn heure bi boo ñëwee day mel ne xoola bëccëg nga nekk parce que lan dund bi moo métti gaa dañuy paqueté wu si néeg yi dañuy xam nga jaante daal lu wax lépp mais banlieue bi tar na tar boo xamante ne bàyyi ku si àndut ak sa ngor baa dina deme neneen barki sëñ Fallou Mbacke ku si àndut ak sa ngor ah da ngay def leneen après leneen fekk la si te balaa loolu nag wala waaw nañ gën a jaante rek xam na fii baa métit ñun lay dal métit mënul dal ku dul jaam mhm. yàlla mooy si xool lu ko neex mu def ko si jaamam barki sëñ Fallou te nu ngi ko defee noonu yow boo ko gëmee rek soo ko gëmul nag mënul am soo ko gëmee nag bés dina ñëw baa mu teggi loolu indi la loo xamante ne di nga fàtte loolu yëpp si kaw nag danga koy gëm mhm. yow même boo nekkee jeel ñu tëj la gëmoo ni da ngay ñibbi barki sëñ Fallou doo nañ la tëj 30 ans laa la wax nga gëm ni yow bés dina ñëw di ngay toogaa sa yaay dangay bés dina ñëw di nga toogaa sa yaay Pape Ndiaye bu tëngeej 23 ans da baañ la def 23 ans la tëdd kaso am yakin chaque jour muy nekk si affaire yi gëm ni moom bés dina ñëw mu ñibbi ana mu tey xëyul xëy ñu ne ko jëlee sa bagage nga ñibbi kooku lu mu tëdd fii Sénégal yi sax am na ko ko tëdd hmm? penam dafa bëri wóor na Serigne Touba Mbacke dafa bëri te ba mu da ko muñ xam ne lii nattu suñu borom la du coobare moom boo ko seetaanee histoire am lu mu la expliqué da xam ne kii problème xar moo ko yóbbee loolu xar jóge football ñëw xam nga benn xar ay ñiy wër xar ñun ñu dàq ji leen noonu rek ay bal ñu jàpp ko yóbbu ko si kaso ñu tëj ko si deux ans ay affaire fekkaat ko fa di tegaloo di tegaloo ba vingt trois ans vingt deux ans nattu daa mun a weesu loolu loolu suñu borom rek moo ko sañ si yow am na loo xam ne bu la dalee loolu bu jaam munu la ko teg jaam bu ko xalaat sax mu teg la ko loolu suñu borom rek moo la ko mën a teg doomu aadama mënu la ko teg moo tax lu ñëw rek ñun ak nu mënta demee ñun mbiri ñun lépp si yàlla lañ ko teg lépp si yàlla man fële naa toog fi six mois mo ma toog naa fi six mois sept mois yoo xam ne liggéeyu mais lépp maa ngi gëm ni bés dina ñëw damay liggéey man gëm naa ne bés dina ñëw dinaa sol te ni dem liggéey mais dara du ma jaralati may jaay sama ngor wala xam nga di yàkkamti gëm naa ne man li ma war a am rek dinaa ko am lu ma warul am nag du ma ko am mais lu ma war am moom si kaw àdduna suñu borom bind na ko te dinaa ko téye man dinaa téye lool noonu moo tax damay toog rek muñ xaar yàlla xam ne yàgg yàgg day jeex mu jeexee nag après moo lool waaw. woon na sëñ état bi ak xale yi bi ñu foofu. waaw waaw di wax ni état bi na jàppale gaay rek. parce que sëñ Fallou Mbacke kaso bi. kaso bi tar na tar boo xam ne bàyyi ku fa sa doom newul. wala sa deret wala sa kii mënoo ko xam wala toogoo ku ko dund mënoo xam ni métti da métti di koso bi gars yi waxee wuñ ko pour lenn lekk bi sa lekk bi baaxul benn ñi ngay gis ñuy génn di néew yëpp loo yow fii di nga fi nekk di lekk di def jimbo kaso boo si deful jimbo ba mu saf jimbo lumb boo jimbo ak nu mu safee boo ko deful si jangaa bi doo ko lekk mu tardee kaan yi boo ko si deful doo ko lekk lekk buy de buy demee noonu loolu loo koy doyee loolu baax danga koy lekk baay di daj ay xeer ak ay business yoo xam ne waa doo xam lu muy nduru xam nga seen meew bi tamit maar reytaal lu yàlla xam doy na am na ñoo xam ne duñ ko naan ba nu ñuy ñibbee sama genre yi du ma naan meew bi meew bi baaxul yàq na sama affaire yëpp wóor na Serigne to waa danga koy naan guddi jot baay doo nelaw coxorom mboose ba yàqu loo xam ne mosul dal sa aduna boo demee kaso dalay dal parce que ñëpp yemunu yow da ngay nekk ak ñag ah nekk ak espagnol nekk ak sinwaa nekk naar yëpp xet yooyu yëpp ak ñàkk yi dajaloog yow xam nga munoo fa génn xam nga rek yaa ma gën a xam woon na sëñ Tuubaa di waxaat gars yi xam nga état bi nañ gën a jàppale kaso bi kaso bi bàyyi métti na métti boo xamante ne bàyyi wala amaana ñoom buñ ko dundoon sax tuuti rek dinañ ko xam ah. il faut indi nañ fa ministre ministre xaw ma kan la woon moom moo forcé dem chambre neuf gars dañ ko doon sàkket di ko yóbbu yeneen néegi kilin yi moom mu ne dafa bëgg a xam Sambuno ba mu demee Sambuno ba ñu ko ubbilee day day jooy ministre bi si boppam da doon tuur xéewal xeet bi ko njëkk a moo ko njëkk a dérangé nee na moom xaram yi fu ñuy tëdd moo gën foofu ka ñii fu ñuy tëdd xoola ko nee na moom xaram yi nekkin bu ñu nekkee moo gën a jekk ka ñii nekkin bu mu leen fekkee te dëgg la foofu xeet bi rek mun na la rey chambre 9 chambre 10 4 3 4 néeg yi ma la wax moo gën a métti si kaso 9 10 3 4 néeg yi ay gàll la day jël plus de trois cent nangam personne trois cent nangam personne da koy jël effectif bi day romb sax foofu jamonoy corona bi dañuy tàncaloo ba nga tiit suñu néeg dañ doon rentere rentere rentere ba nga tiit booy dañ doon taxaw duñ sax toog booy dañuy taxaw seen chaise yëpp dañ koy taxaw moo tax yenn ancien compte yi boo leen laajee trois mois ñoom dañ la naan ñoom dañ koy sélectionné ba mu jeex trois mois duñ ko tëdd duñ ko toog diggante bu gàtt ñu paqueté fa ay pile de cent cinquante personnes diggante bu gàtt te dañ fay tëdd xaj ñoom ñëpp boole na foo xamante ne bu doon normal la normal la trois personnes ñoo fay tëdd nga jël ay quatre-vingt-quinze personnes wala cent personnes boole leen fa te bu doon normal normal la cinq personnes du ko wees ñoo fay tëdd mais dañ lay won ni kaso la quoi genre armée lañ lay def pour du neex kaso mënul neex pour lan la pour boo génne yow nga mun a jaante mun a moytu mun a xam ne lii wala bu dee yow gor nga rek am nga looy jomb rek lii ni baax du sa yëf waaw jombul kenn nag ku fa dem da nga fa war a dem mais di gën a ñaaxaat tu tànk yi di gën a ñaaxaat booy tamit bàyyi wala nañ jaante bàyyi wala du ko def bàyyi da ngay sa business fii gaan dem daanu kaso ñëw fekk lépp ak ah, da ngay tàmbaliwaat à zéro bàyyi loolu noonu tamit nañ ci jéem a bàyyi xel bu baax a baax baax te xam ne kaso wala kaso du kaso moo loolu nattu la dëgg la mais bu jeexee jeex na bu jeexee rek jeex na man dama fa nekkoon ay borom vingt ans man tëdd naa koo xam ne vingt ans lañ ko tëj tëdd naa koo xam ne quinze ans lañ ko tëj tëdd naa koo xam ne dix ans lañ ko tëj Mansour Diop alias Thialé di ko ñaanal gaan xam nga nattu bi wala waaw moo loolu ay Latir mbay di ñaanal bu baax a baax barki sëñ Fallo ñooñu ma grand yo man ak ñoom la si kaso ñu grand Thialé ngooñ man ak ñoom dañ ko dundandoo trois ans si benn néeg ngaa ko belende xam na li may wax mhm. wóor na Serigne Touba billaay walaay ngaaka man message bi ngaaka laa koy lancé ngaaka belende man la Kara man maay wax ak yow yow ñu na ak yow ñun ñoo ko dundandoo gis nañ nag li nga daw yëpp mais dëgg la dañuy xam ne noo sa xel foofu la toll mais boo boo bàyyi xel tuuti si ginnaaw noo di nga xamante ne dund nañ ko barki naa Mouhamed te ba muy métti gisoo kenn ñun nga gis ñun ñoo la doon teg si moo doon sikar ñun ñu koy baaxal suñu néeg Ngaaka da doon sikar guddi aajuma jot muy sikar ñu koy bakal barki Seydina am 14 ba muy rentré sama kanam dund nañ ko nag naas naas xam nga mais nag war a dafa war a gën a naas Ngaaka ñu ne yow bañ koy dund du lii waxoo ñu woon tamit lii wala ànd nañoo yow si ngor baay dundoog yow si métit bi baay bu jeexee rek jeex na yow xamal ni jeex na génnee nga sa son def lu la saf man am na ay booy may woo naan ma yow mu gaay Ngaaka moolul xam nga Kara da xam nga ma ne man saakuma loo si ngaaka ma ñun saakawuñ moom si ay na woy wala na la def lee ñun luñ ko wax moom xam na ko bu baax liñ siyante woon ak moom xam na ko te defu si dërëm ñun ñu ngi fii tuupere moom mu ngi dali ñun ñu ngi dalifoor moom mu ngi géejawaay moom amaana carrière fi la ko defee dalifoor parce que man wax na ma si lu bëri ngaaka doon woon toogal kenn ku dul man ak sam benn boobu dëkk jaamu gën fàllu ñun rek la doon toogal su wéetee ñun lay woo ñoo koy wéetali barki Seydina Mouhamed ngaa ko belende xam nga di ko lancé nag gaan xam nga mu gën a jàpp si affaire yi baay waaw ngaa ko jàppal si affaire yi baay wóor na Serigne Touba Mbacke jàppal si affaire yi man la Kara xam nga mu bu baax a baax man yow dund nuñ ko baay du wala dund nañ ko man ak yow lees waxul xam nga li ma la wax bu baax xam nga waaw di ñun dañ ko doon ñaanal sax moom mu ñibbi fàtte suñu bopp ndax moom daa am mission boo xam ne da ko waroon yeggali di ñaanal ngaa ko pour mu ñibbi ñun wala fàtte suñu bopp mel ni ñun fa lañ dëkk parce que ñun boobu instant xam nga rek ñun gëm nañ ni dinañ ñibbi moo tax duñ ko yenu quoi ñun xam nañ ni bés dina dinañ ñibbi suñ dee même buñ dee dañuy ñibbi asutuma laag nag ñu ngi dund kon dañuy ñibbi xam nga lu ma la waaw di ko gën a wax moo loolu mu gën si jàpp rek waaw ba sëñ falo Mbacke waaw moo loolu yéen moo loolu si yéen rek jamu si yéen ju bëree bëri ba sëñ falo Mbacke di leen ñaanal xam nga tele bi baax doon ay télé yu mag a mag waaw man sama nit ngeen yéen Baol TV man fa laa di nuyuwaale naar faal bu baax waaw di ko nuyu naar sama grand la sama lëpp la borom baax la nekkoon si ay nattu nag di ko ñaanal tamit moom xam nga li mu nekk nii amaana wala dafa gën daal comme li ma leen wax rek fii moom loo war a jaar da nga koy jaar xam nga amaana suñu borom noonu la ko woyee fale nañ si santaat yàlla bu baax xam nga te xam ne bés dina mu jóg nekkaa si ay activité am waaw moo loolu naar di la ñaanal jaamu ju wér bakki sëñ Fallou Mbacke waaw waaw ak xam nga di lancer waat benn message tamit xam policiers yi di ñëw fii nii gaare yi ñëw fii xam nga ñun bañuñu nga ñu def dara nga yóbbu nu ñun bañuñu loolu mais gaan boo ñëwee nga fekk ay ndaw ñu toog boo leen fuye fekkoo si ñoom dara man pour man da nga leen war a bàyyi ñu dem ko waa mais fi nii Dalifort li fi am doy na waar doy na waar barki sëñ Fall dañuy jàpp booy naka sudul noonu waar da ngay toog ak ni tey tey nga xëy ñu ne la booy bi jàpp nañ ko yóbbu nañ ko Dalifort fii démb barki démboo démb laa fi toog sam benn booy xëy naa ñu ne yóbbu nañ ko 3 mois xam nga si ay affaires yoo xam ne doo comprendre tamit xam nga policiers yi tamit nañ siy jàpp ñun koo jàpp ak affaire defeere leen ko koo leen jàpp naka sudul noonu yóbbu leen ko bu leen ko baal mais tamit ngir yàlla koo leen jàppul ak dara bàyyi leen ko ngir jëmmi yàlla bu ngeen bañ ko sax tàmm di def yooyu noonu xam ngeen li ma leen wax bu baax a baax baay ko le motif dafa war a deñ wër na Serigne Touba si dëkk bi lañ dëkk ñun lu ñu am fii lañ koy ñun déggoo ma suñ naree am te bokk ñu ko waa Dalifort yàlla buñ ko yàlla may kon ñun suñ Dalifort lañu am baax nañu si jéem a jaanteel Dalifort baay kenn mënatu fi ñëw ndax lan alkaati yu bëri alkaati yi dañuy ñëw gis booy toog rek ñu yenu yóbbu baay ah, te booy duñ def dara booy xam nga te ñemewuñ affronté gars yi parce que yóbbu nañ seen fit xam nga yii nga mën a profité waxaale ko baa nañ si jàpp baay booy bu ñu fekk ak dara bu la neexee yóbbu ko lu yoon warloo moom mu def ko ñun bañuñu loolu fii ku teg yoon yoon day dal sa kaw ñun bàyyi ñu lool mais tamit am na loo xam ne boo koy def na nga si xool sa diggante ak suñu borom waaw bis boo yóbbu nit di kaso kaso nekk na loo xamante ni mooy dernière solution si aduna mooy dernière solution boo demee boo koy def doomu aadama ah na doon lu leer a leer leer nga yenu ko yobu bañu ñu loolu mais nga yenu nit ki yóbbu un jour viendra dernier jugement bi day am mooy suñu borom te dernier jugement moom bàyyi mooy lépp ñun gis nañ fi juge bu fi àtte ak chambre di tëj ay vingt ans toog ak soxnaam di reer soxnaam waaye soxnaam jur boobu la juge boobu bàyyi àtte chambre criminelle parce que chambre criminelle peine bu ndaw amu fa cour d'assises peine bu ndaw amu fa moom lañ yóbbu chambre criminelle cour d'assises bi nga doon dégg moo nekk à chambre criminelle kooku chambre criminelle la doon àtte toog ak jabaram xëy nii ba wàcc di reer moo soxnaam soxnaam toog ak moom ne ko yow mbaa yaa ngi bàyyi xel mu ne ko comme mu ne ko ñu ngay tëj ñu ngay tëj seen giiru dund ak say doom yoo yaa ngi nii toog tëj nga leen giiru dund dem nañ yow yaa ngi toog ak say doom xamuloo ma la di reer di def lu la saf est-ce que yaa ngi siy bàyyi xel suñu borom dernier jugement bi day ñëw force la fii ah, kullu nafsin saaxiratil di bakkan bu ñam dund da ñam dee force la waaw nañ ciy bàyyi xel bu baax si si tamit waa nit dina tooñ nit yóbbu ko kaso ndax lan bañ ko rek yóbbu ko kaso bëri na fi ñoo xamante ne dégg boo demoon peese laa la cent bi boo fa demoon cent pour cent lañ wax quatre-vingt-dix-neuf pour cent yëpp amaana dañ leen tooñ yóbbu leen kaso ay innocent kese nga fay fekk man ñaata yoon laa fa nekk ak ay innocent hmm? ak kii jijak jijak tamit ménagère Viviane bi kooku tamit dund nañ ko ñun ak moom jijak xam nga jijak waaw jijak xam na ma bu baax ba muy nekk chambre fin moom tamit natom bi di ko ñaanal xam nga ba yàlla def xam nga mooy mu nji moom tamit nekkoon na fa lu baax weeru koor fekk na ko fa xam nga sax ñun dañ doon segg foofu café di ko jox jaam ñi parce ñun ay baafaal lan moo tax ñun bañ daanoo kaso ñëpp dañ ko doon seedal pourtant nii ak nii mais xam nga rek lu suñu borom bi mënoo dara ba ñemee ba kaso tam mission boobu dañ ko eggali Latir Mbay ngooñ ba muy ñibbi dafa yëkkati caabi jox ma ne ma Kara ma ko naam mu ma mission bi yaa koy yeggali mission café bi teg naa ko sa ak daara bi guddi ajuma beeg lépp noo ni yeggali ko ma ko sëñ Faalo mu ne ma ni ma ñu ne ko sëñ Fallou mu dem ñu eggal mission boobu jijak jàppoon si nag bu baax sak buy heure café buy jot dañuy bindal kafe bu doy bi ñuñ suukar bu doy di ko nuyu bu baax a baax xam nga di ko ne moo loolu waaw ba tey nag mu ñuy gisee xam nga de waaw incha allah di ko wax ni gaan gaa yaa ngi nii barki sëñ Fallou Mbacké ñi nga baaxan si biir ñu ngi nii si taan bi nag waaw xam nga rek ñun am na ñoo xam ne jomm nañ ko guddi comme lu ma la sànq ñun lu ñu am guddi muy lu baax suñu yaay la bu dee lu bon duñ ko sax yàlla buñ ko gis ba koy ba siy teg suñu loxo wala di si teg leneen wóor na Serigne Touba di ñaanal ñëpp nag bakki sëñ fa di la ñaanal bu baax a baax bu lépp bu waay am ñu ngi koy ñaanal fii loo fi asna aduna loo gis natu la aduna loo gis fii nattu la lu ñëw rek natu la waaw nit dina nekk di dund neneen naka sudul noonu amaana lool natu la bis dina xëy ñëw mu changé bis dina ñëw mu kii nii nekk Grand Médine kii kii Youssoufa Niang ay Youssoufa Niang grand yooyu Youssoufa Niang ñooñu ñoo ñu ñooñu ay homme de milieu lañ dund nañ lu nekk si mila ñooñu dund nañ lu nekk si milieu mais anamu tey natu la woon mais ba mu waree jeex dafa jeex tàkk instant ñu ngi si beneen dynamique bay kuy dem bay posé ay candidat maire ku nekkoon homme de di def naka sudul noonu dem bay sope ay doomu aadama di leen xam nga teg si code di sensibiliser xam nga di dimbaliwaat ndaw ñi xam nga loolu noonu homme de milieu moo ko mën naa la xamal lay fii nante rek jàmbaar rek moo mun leen ni ngaaka moo lay seraan nga dee mais jàmbaar nante du la romb bàyyi ngay sukuraat nante bu tombee ngay sukuraat amaana bu juróom mun nga muc mun nga mucc mo tax di gën a ñaaxaar gaay rek xam nga waaw moo loolu dina xamal ne nattu la rek nattu la rek lu ñëw rek nañ ko muñ ba ci sëñ Fallou Mbacké di leen jaajëfal bu baax nag woon na sëñ Touba bég naa trop baay yaa jëf